الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom ab jaam daawa fu mu toll di sant yàlla ñu ngi seede na moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu seede it ne yonent yàlla muhammad mooy jaamam bu mujj bu mu yónni woon ci ñun suñu borom yàlla digal nañu ni nañ ko ragal ci lépp lu ñuy wax mu doon wax ju jub kon day danañu yéwénal suñuy mbir te baal ñu suñuy bakkaar xamal nañu it ci bëgg a kexe kexe bu mat ca mbokk kexe bu mat mooy kexe adduna kexe alaxira suñu borom nee na ki ko bëgg mooy ki topp yàlla ak topp yeneen ci yàlla yal na yàlla boole ñu ca mbokk julit suñu bisu tey bii mooy bis bu njëkk ci li ñuy tudde rabiul awal suñ maam yi daan ko tudde wéeru gàmmo wéeru gàmmo loolu da ngay gis daan nañ ca indi xew-xew yu mag xew-xew ya lan la doon junju mooy bëgg buñ bëggoon sunub yonent ak màggal buñ doon màggal sunub yonent looloo taxit ne su wéeru teroo la chaque ne rajo yi télévision yi réseaux sociaux yi lu nekk mbokk da nga ko dégg waaye yow jullit wareet la ci yow nga war a xam yonent boobu yàlla yónni woon ci man ana lan la yàlla bëgg ma jëflante ko ak moom xam leen ne mbokk julit dañuy sant yàlla yàlla jiitu ñu yónni na ay xeet yu baree baree bari ñun yàlla tànn nañu boole ñoo yonent bi gën ci yonent yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole ñoo téere bi gën a mag boole ñoo diine bi gën a mag loolee mbokk dañ kaa war a sant yàlla suñu borom nee ne diine ji ñuy dund mooy mottali bépp diine bu mos a wàcc ci kaw suuf lii moo koy matal lii la yàlla gën a gërëm lii la yàlla gën a sopp ci lépp loo xam ne mas nañ ko koo jaamoo ci kaw suuf yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam bi muy faatu fekk ne kon diine ji jeex na mat na du daga na ci gannaawam kenn koo xam ne dafay ñëw mu ne kat moom dafay indi jaamu yàlla gi ngiree jegee ko borom bi subhanahu wa taala rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla dana ma mës a yóbbu te loolu si ko amu ci bàyyee naa leen nag aw yoon woo xam ne ma nga yaatu ma nga leer nañ ñi amul kenn ku bëgg a dem ci yàlla lu dul ca lay jaar képp koo xam ne génn na ko mooy rek koo xam ne dafa nar a alko yoon boobu yonent bi alei salaam leeroo ko ne mooy téerab yàlla bi ak sunna bi nga xam ne bàyyal nañu ko loolu lañ yàlla waxoon mooy ay yéen jullit ñi sama yoon a ngi nii doon loo xam ne yoon wu jub la asuraat mooy tariqa yoon boo xam ne dañ koo defar jubbanti ko loolu mooy siraat sama yoon mi ngi nii ay mooy tariqa bi ma leen tëralal pour yéen ñëpp ngeen jaar ci ngal la waay yéen julit ñëpp bokk leen benn tariqa jaar ci jëm ci man te mooy li ma yónnee woon sama yonent la nga xam ne mooy yoon yu ndaw yi di ñett yi ngal la waay moytu leen ko ndax heure boo ca jaaree da nga jàdd sama tariqa lii maa ngi leen koy dénk ngiree ngeen ragal yàlla mbokk julit nañu xam ni julit dafa war a nangul ni suñu borom yàlla du fàtte dafa war a nangul ni yeneen ci yàlla du wor suñu borom yàlla wareef la ci moom mu jindi ay jaamam looloo tax mu jël diine ji nga xam ne moo ko seedeel boppam ne mat na mottali naa ko gërëm naa ko jox ko yeneen ci yàlla bi yeneen ci yàlla boobu itamit jonti li ko nam wari looloo tax julit dafay fas ne amul lenn loo xam ne yàlla gërëm na ko su ma ko defee yàlla gërëm nga fay ma ko lu dul yonente bi jàngale na ko loolu la julit war a gëm dafay gëmit ne amul lenn loo xam ne dana ma lor ci sama diine ji lu dul yonente bi alei salaam leeral na ko mbokk lii julit da koo war a gëm ñu moytu képp koo xam ne dafa ñëw bi yonent bi faatoo mu daal di indi benn jaamu yàlla ne lii de luy jegeel nit ki ci yàlla la lu gën a gaaw a yóbbu nit ki ajjana la comme nim tasaaroo tey ci kaw suuf sunu réew ak feneen képp ku mel noonu taxaw nga palaasu yàlla ndax yàlla dong moo am droit wax jaam yi def leen lii ci jaamu heure boo tëralee indi nga loo xam ne taxaw nga place yàlla moom la borom bi di wax ne ndax nit ñi dañoo am nag léegi yeneen yàlla yu leen di tëralal ci sama diine ji loo xam ne joxewu ma ci ndigal su ko defee da nga dégg ñi nga xam ne yàq moo leen tax a jóg wala wiir gu métti tax leen a jóg ñu ne cay waay ñi naan bidaa bidaa bidaa kon bu ñu nekk di takk ay moom bu ñuy dem màkk nañu war ay giléem mbokk suñu borom yàlla terewuñu la nga xam ne mooy bidaa bu tax suñu àdduna ñoŋ suñu borom yàlla moo ne saxara lakum ma fi samawaati wa ma fi l ardi jamian minhu maa leen tàggatal asamaan loolu tax tey doomu aadama mën a créer ay fiso fusé ginnaaw jëm ci kaw mën a créé ay satellite di ko place ci ay orbite mën a def lépp ndax yàllaa ñu tàggatal asamaan tàggatal ñu lépp lu nekk ci kaw suuf luñ ci mën a jëfandikoo jëfandikoo ko amma diineem ji moo ko nattale matal ko yeme na ko képp koo xam ne yaa ngi sos ci diine yaa ngi taxaw place yàlla jalla wa ala mbokk ab yonent tey ñi ngi nekk ci weer wi nekk la judd sallallahu alayhi wa sallam ba ñun nuñ ko war a màggale mbokk yeneen ci yàlla bi day moom la ñu war a gën a bëgg keneen ku dul moom moom suñu wayjur suñuy doom xataa suñuy bakkan yeneen ci bi mooy ñu ko war a gënal moom la ñu war a màggal keneen ku dul moom war koo fonk keneen ku dul moom mais lan mooy jubluwaay bi ci loolu mbokk jubluwaay bi mooy ñu doyloo ko mu nekk suñu sëriñ jubluwaay bi mooy ñu doyloo ko mu nekk suñu njiit ñu gëm ne bu dee ngërëmal yàlla rek lañ bëgg nañ doyloo lam indi lii rek mooy tax mbokk suñu màggal ak yonent bi alayhi salaam mën a wér loolu fokk yow julit nga bàyyi ko xel yàlla musul yónni yeneen lu dul ngir ñu tàpp ko nee na lii rek a tax wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah ñu topp ko te yàlla tax topp googee it dafay doon topp goo xam ne day mat sëkk yeneen ci yàlla bi léppam la ñuy jël moom dong moo ko yeyoo abu bakar amu ko du omar du ali lu tax loolu mooy yeneen ci yàlla da leen a sàmm njuumte bu ñu def ci saasi la ko yàlla di jubanti keneen amu ko ci xeet bi guddul moom looloo tax moom dong la ñuy topp topp goo xam ne topp gu dong la borom bi subhanahu wa taala ni lépp lu leen yeneen ci yàlla bi indil jël leen ko waaye lépp lu mu leen tere bàyyi leen ko ca xam leen ne yàlla ko tar ay mbugal la ndax moo ko garantil ne yonent bi du wax ci bànneexu bakkanam lépp lu mu digle wala lépp lu mu tere waxuñu la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko waxi te yéen nga ko julit suñu borom yàlla nee na ngalla waay na moytu ñiy juuyoo ak yeneen bi doxalin bu ñuy jaamoo yàlla ci fitna dal seen kaw wala mbugal bu tar dal seen kaw bari na tey dëkk lislaam yi ñu ngi dund ci ay fitna maa ngi lay seedeel ne cosaan ba du dara lu dul bokkaale xoraafaat bidaa ya nga xam ne moom lañ tasaari ci seen biir suñu borom yàlla ngir yërmandeem di leen dóor yaru mbugal ngir ñu mën a dellu gannaaw ca wuute ak yonent bi day jur fitna mbokk julit loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee ki bëgg ngërëmal yàlla ngal la waay day doyloo sunnaam suñu borom yàlla nag bokk na natt bu mu nattu ay jaamam depuis yonent yàlla nuux ba suñ jamono yi tey natt ba moom mooy lan moo di ne am na ay cheytaan ci ay nit ak i jinne mbokk cheytaane mooy képp koy woote ci yoonu réer ñoo xam ne créé nañu ay jaami yàlla yoo xam ne ñoom mooy nañ ca tasaare nañ ko ci biir doomu aadama yi loolee suñu borom nee na su doonte ne daf maa neex du am waaye natt la ba mu nattoo ay jaamam loolu mbokk la ñuy tuddee li nga xam ne muy ay bidaa bidaa mbokk dafa neex lool bidaa dafa xumb lool seytaane da koo taaral lool waaye ngal la waaye mbokk julit xam leen ne bidaa day soril nit ci yàlla ni sunna di jegele nit ci yàlla biddaa dafay merloo yàlla ni sunna di kontaanloo yàlla suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne bokk na natt bu muy nattu ki nga xam ne dafa dund biddaa bu ñu sos dafay ñaan yàlla yàlla dundal ko ci yàlla rey ko ci ku mel noonu du tuub mukk looloo tax ba cheytaani li ko gënal jaam yi def ko muy bidaa tritoo ko ay bakkaar waajee di naan sangara waajee nekk criminel moom ci boppam xam na ne li may def baaxut mi ngi ragal digganteem ak boroomam mi ngi rus jaamu yàlla yi mën na am mi ngi yéene ne moom dana ma sa tuub am naa ki nekk ci bidaa moom day jàpp ne moo gën ñeneen ñi sax ci sunnay kese te ji waa ji dund bidaa gis koo xam ne daay doyloo alquran ak sunna day xeeb diineem mooy ñi nga xam ne nee nañ ñoom ñi nga xam ne gëmuñu dara lu tax ndax gëmuñu la nga xam ne nii cheytaane taaral na ko muy biddaa bu neex boobee bu cheytaane rafetal boobee maadaama ñii amuñu benn biddaa bu ñuy dund ñii ñoom seen diine lañ koy xeeb su ko defee jamais ñu dellu ci gannaaw looloo tax ba mbokk jurit nañu moytu bokk na lu yàlla di nattoo ay xeet amul benn xeet buy sos benn biddaa lu dul yàlla xalilin sunna bu tol noonu biddaa heure bu ñëwee dàq sunna sunna heure bu ñëwee dàq biddaa loolu moo tax ba fexeel ba képp koo xam ne ni mi ngi la dikkal ca wallahi mbokk julit nañu gis ne ñu ngi dund jamono bu doy waar jamonoy internet doomu aadama yi événement diine yi da daan soriyoo lool tey nag yaa ngi nekk jamono boo xam ne ajjuma yi tey jii bu la neexoon bu ñu génnee jumaa ji une heure de temps nga déglu fukk xol ba yoo xam ne def nañ ko Sénégal mboolem daje yu am Sénégal bu la neexoon tey nga déglu yépp loolu nag tax na ba ñu bari ñu ngi cee profité tasaari ay xurafaat tasaari ay bidaa tasaari ay yoo xam ne dana tax doomu aadama yi xel ñoom jëm ci ñoom ñeneen ñi di ko def ci ak riir di tasaare ay loo xam ne amuñu ci benn tegtal ba nga xam ne nii loolu mbokk musiba yam jur kenn mënu koo wax yàlla natt ñuy jamono joo xam ne dem nañ ba terolu bon sax nit ñi dañoo jàpp ne fitna la ba borom xam-xam yu bari ñemee ci ñoo wax képp koo xam ne yaa ngi jóg di wax ci shirki di wax ci bidaa ñu ne waaye kii moom daa ëppal kii moom day day jur fitna ca mbokk xeet bi bu ñu demee ba nit ñi wax lu bon nëbbu wuñu ñiy def lu bon nëbbu wuñu ba pare ñu ne nañ nëbb bu kenn teru lu bon mbokk xeet bi fan la jëm loolu ñu bàyyi ci xel bu baax looloo tax ba ngal la waay yow julit naa ngi lay dénk lépp loo xam ne nit daaral na ko sa wet laaj ko lan mooy tegtalam ci loolu xamal ni nit ñi tasaaroo nañu ku nekk jàpp na yoon ba nga jaar moo gën beneen budul boobu te nii la ko yonent bi alayhi salaam waxe woon sahaaba bu mag di irbaad ibnu sariya nee na yonent bi daa toog ak ñun daa di ñu xupp benn xupp boo xam ne ñun ñëkk fekk woon ñëpp suñuy xol tooy na suñuy bët tuur nay rangoon ñii mbokk mooy sahaabatul kiram nga xam ne bokkuñu suñu jamonoy tey ñun ñëpp suñuy visa àjjana mi ngi suñu poche boo dee àjjana nga jëm amuñu lu ñuy ragal amuñu lu ñuy tiit am naa sahaabatul kiram bi leen yeneen ci bi xuppee xol yi yëngu na rango mi tuuru na am ci ñoom ñu jël na ko ah yu mu yàlla yónni su xuppaate bii dafa mel ne da nga ñuy tàggu yeneen bi ne leen waaw waaye nag maa ngi leen di dénk su ma fi jógee maa ngi leen dénk ragal yàlla di leen dénk bu leen yàlla may njiitu julit ngeen ànd ak moom bañ a teqalikoo maa ngi leen di dénk képp ku dund ci yéen dana gis jooyoo gu rëy guy nar a am sama biir xeet bi waaye su boobaa maa ngi leen di dénk ngeen moy ci sama sunna ak sunna xulafaa rachidin almahdiyin te loolu xeet bi dëppoo ne ni muy aboubacar omar ousmane ali loolu yonente bi alayhi salaam ne jàpp leen ci bal mooy leen ci ndax ca la yem mu ne nank leen ko ci seen i dëgëj ca moytu leen la nga xam ne dañ koy sos sama gannaaw lépp lu ñu sos ci diina ji sama gannaaw loolu bidaa la ci bépp bidaa réer la te réer bu la yàlla jéggalul sawara lay jëme borom ba loolu it moo tax ba mbokk julit digle yi ñuy digle ci jaamu yàlla bari na yoon yi tasaaroo na waaye ngalla waaye jëlal règle bi bépp jaamu yàlla boo xam ne nii indi luñ ne tegtal na la kat lii aboubacar ak omar ousmane ali dañ ko doon def nga la waay bokkul ci diine ci ak lu mu rafet rafet ak lu mu xumb xumb waaye lii day aboubacar bu ñëwoon day laaj lii lu mu doon omar xamu ko ousmane xamu ko ali xamu ko loolee mbokk bokkul ci diine ci nga la waay loolu def leen ko seen règle bari na nag ñu bari ñi koy def ndax dañoo contre diine dee def contre ñu diine dañoo bëgg yàlla bëgg jege yàlla waaye nañ ko bëggee lañu xamut mbokk bëgg yàlla kenn du ko bëggee ci yokk ci diine ji waaye bëgg yàlla mooy jàng diine ji dund diine ji dëppale sa dund ak naka yonent bi alei salaam doon defee lépp looy wax yàlla tax looy jàpp yàlla tax sa doxalin ci lum mën a doon nga royee ko ci sunna ndax sunna du dara lu dul lu neex yàlla mbokk nii la ñuy bëgg yàlla nii la ñuy bëgg yeneen ci yàlla moo tax suñu borom ni yow julit del wax ni man day sama dund sama dee samay julli samay rendi yàlla moom laa jegle lépp amul ko ma ko ci booleel ca lii lañ ma sant ca bokk ca bokk naa njëkk a jëkk a jébbalul mbokk lii mooy bëgg yàlla jalla waala nga la way mbokk julit kii mooy suñu yenente salallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne buñ ko jiitu ci dara laa tuqaddimu bayna yadayhi illahi wa rasuli nga la way julit bul def dara loo xamee ni nii tegtal yu leer war na la lii yenente bi moo la ko jàngal nga la way julit xamal ni yenente boobu suñu borom moo garanti ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppee di ngeen jub di àddina liñ bëgg a def suñu borom mu ne topp leen ko su ngeen toppee ci gannaaw da ngeen jub looloo tax ba moytul sa gën jaa màggi moytu sunna yeneen ci baa ngi nii benn waay ne la waaw waaye nag day cheikh diw moom yàlla defal na ko kashfu kashfu goo xam ne nangam nangam ji ci diine ci la bokk cheikh diw day am na loo xam ne gént na ko mooy nangam nangam am na ñoo xam ne paase nañ sax gént dañ naan yeneen ci bi alayhi salaam moo jóge waat ca barzaq ñooy fecc àdduna toog ak ñoom jox leen jaamu yàlla yoo xam ne aboubacar omar ousmane ali kenn xamu ko ca woon yii mbokk mbir la yoo xam ne dañ koy dund waaye nga la way yow mi nga xam ne borom xel nga xamal na loolu day nasaxal xeet bi day teqale xeet bi xeet bi la koy may doole mooy ñu bokk benn sëriñ bokk benn tariqa bokk benn jubluwaay ndax yàlla mi ñu jaamu benn la àjjana dañ bëgg jëm benn àjjana la benn yoon moo fa jëni ñun ñëpp ñoo jàpp ci loolu amul lenn loo xam ne te tey dana mën a yëkkati waa xeetu lislaam may ko place ci àdduna bi indil ko jàmm loolu ñu delluwaat jàngaat téeréb yàlla bi ak sunna yonente bi alei salaam rafetalaat suñuy pas-pas rafetalaat suñuy jëf tënku ci njàngalam yonente bi salallahu alayhi wa sallam nga la way yéen mbokk julit xam leen ni lu bari ci nit ñi li leen réeral mooy xanaa nangam baaxul na am nangam mën na baax ba pare yàlla bëggu ko ndax nang ko defee amul bari na ci yéen ñu mës a dégg ñetti nit ñëw ci kër yeneen ci bi alei salatu wasalaam laat ni muy jaamoo yàlla ñu wax leen ko loolu yi ñoom ñu jàpp ne war nañoo mën a am luñ ci dolli ngir mën a am ngërëmal yàlla am ci ñoom ku ne man day dootuma doga ci bëccëg damay woor bëccëg bu baa may dajeeg sama borom am ci ñoom ku ne man day damay dëddu jigéen ñi def ni rabbi yi def am ci ñoom ku ne man dootuma nelaw guddi damay fanaane naafila ba baa day dajeeg sama borom waaw gaa yi ndax naafilu guddi baaxul ah kay ndax woor baaxul ah kay ndax dëddu ay soxna yonente bi daana ko def ci itikaaf waaye bañ demee nag bëgg koo paasale limite ba ko yonente bi doon defee yonente bi daa dem ca kaw min baram ne dégg naa ci yéen ñuy wax nangam nangam nangam man day damay ànd ak samay soxna damay woor ay bis di dox damay naafilu guddi di nelaw sama sunna ku mu doyul nag bokkatoo ci man loolu moo tax benn waay naan la lu nekk ci astafurla lu nekk ci lay lay la lu nekk ci nangam nangam waaye mbokk bu ñuy jéggulu yàlla nañ ko jégguloo na ko yonente bi ak sahaabam doon defee bu ñu tudd yàlla na ko yonente bi salasam doon defee dañu bëgg ay màggal yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax ñun ñoo ko gën a bëgg sahabatul kiram déedéet nañ xool naka la ko sahaaba yi doon màggale ñu màggale ko noonee lii mooy la nga xam ne julit bi am xel mu bañ koo yóbbaale liir mi nga xam ne moom lay dund julit bi am xel ci li lay taxaw yàlla way yéen ba ko julit xam leen ne day dem àddina lañ bëgg ñun ñëpp yàlla ñu yàlla yóbbu dem àddina suñu borom yàlla moo nañu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawm al axir wa zakara allaha kathira yow mi nga xam ne da nga bëgg boo dee yàlla gërëm la alaxira nga bokk ci waa àjjana suñu yeneen suñu borom nee na lu simple la mooy lan laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jël leen yeneen ci yàlla bi mu nekk seen sëriñ topp leen ci la nga xam ne mooy sunnaam lii mbokk ko ci topp àjjana nga jëm moytul gën jaatar ci moytu yeneen ci bi alayhi salaam dana taxaw ci déegam ba yowmal qiyaama di woo xeetam ay yéen sama xeet kaay leen mi ngi leen di xàmmee jàpp bi ñu doon jàpp ca ko jàpp julli nga waaye malaaka yi xaat mbooloo mi di leen jëme sawar yonent bi alei salaam ne leen mais ñii sama xeet lañ bokk ñu ne ko ay muhammad ñii xamoo lan lañ sos sa gannaaw soppi nañ lan fa bàyyi woon yonent bi ne leen kon suxpan suxpan nañ ma sori nañ ma sori loolee mbokk julit bàyyi leen xel ci loolu xir ci diine amul njëriñ diine da ngay jàng diine da ngay topp diine da ngay doyloo nañ jàng sunna yonent bi topp sunna yonent bi te doyloo sunna yonent bi lii day buñ ko defee yàlla may ñu aafiye fi dunia wal axira yàlla yàlla yombal ko ci ñun yombal ko ci bépp julit yàlla yàlla doyloo ñu sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla yàlla def ko suñuy royukaay yi ci lépp loo xam ne ñi ngi koy wax wala ñi ngi koy jëf yàlla yàlla jëkkalaat xeetu lislaam yee leen ci lépp loo xam ne ni da leen di réeral waaye delloo leen ci ngërëmal yàlla yàlla yàlla defal ñu jàmm àdduna ak defal jàmmi alaxira sunu mbokk mbokk julli di nekk ci ay guerre yàlla yàlla fay guerre yooyu ci ñun ñëpp ñu nekk ci ay fitna yàlla yàlla subhanahu wa taala teggi leen fitna yooyu yàlla yàlla boole ñoo gënante bi ca firdawsil aala ñu ànd fa moom ak i sahabam ak way jur yaa képp koo xam ne nii njabat lu bu baax ñu ngi noonu bokk dilit allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin